mbokki internet Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen nag ci mbirum Ahmed Aidara conférence de presse Yewwi Askan Wi bi ñu doon amal niki tey jile moom Ahmed Aidara ci la dal di yëkkatee ay kàddu nag jëmale ko ci président Macky Sall nag di ko xamal nag ne li nga xamante ne bii moom lay def ci euh, réew mi moom mi nag di Ahmed Aidara mi ngi koy ñaawlu bu baax baax jàpp tëj bundu xatal ay junniy junniy doomu aadama ci biir kaso bi loolee Ahmed Aidara kat mi ngi koy ñaawlu di wax ni kat ñoom ñi nga xamante ne bii ñooy waa Pastef ak Yewwi Askan Wi seeni doom ñi ngi foofu noonu waaye seeni soppe it ñi ngi ci biir kaso boobu ci ñoo xamante ne bii dañ doon xeex ak ak yelleef waaye dañ doon xeex nag seenub li nga xamante ne moo di seenub leader euh, bundu xatal gi nga xamante ne bii moom lañ ko doon bundu xatal ba tax ñu leen ràpp ci biir kaso bi nag muy wax ak président Macky Sall pour mu libérer ñi nga xamante ne bii jàpp na leen dugal leen ci biir kaso bi waaye nag mi nga xam ne nag ni li muy jàpp lu mu bëri bëri taxul benn yoon ñu mu tee ñi war a di wax waaye a def def ki nga xamante ni bii moo di Ahmed Aidara nag mu daal dikkaat bu baax a baax ci dem ak Ngagne ba Touré fële ca diwaanu Mali mi nga xam ne nag ne du moom bi moom képp moo dem waaye ñu bëri it dem na lu toll ci ñeent fukki doomu aadama daal di nañu génn ci biir réew mi daal di dem ci yeneen réew féete jëfa ndaxte kat li nga xamante ni gis nañ ko ci biir réew mi doyatu leen looloo tax nag ñoom ñu daal di daal di takk seeni bagage daal di génn réew mi daal di eh, dem faneen ki nga xamante ne bii nag moo di Ahmed Aidara ba tey daal di dikkaat ci eh, eh, waa bitim réew muudu muudu ya fa nekk war a màggal si nag ci diwaanu eh, Touba moom it mi nga xam ne nag si nga ci diwaanu Sénégal daal di naan ne képp koo xamante ne bii foofee nga xamante ne bii moo di ca bitim réew loolee Ahmed Aidara moo ko xamle ginnaaw nag seen conférence de presse bi nga xamante ne bii ñu ngi ko doon amal ni ki tey jilee